man sumbulu ma ngi Sénégal live waxtan bi fofu la Sénégal live yéen nak mbaa kar ngeen ko ba yéen it ngi kar ba ngeen ni waxtan bi fofu la Sénégal live kon legi léegi lay doon Sénégal live kon legi léegi lay doon nguur gi na sanctioné borom ñu reuy yi nga ñi ngi commencé di wax ne ñom seen yitté mi ngi dess ci léegi bu ñu ba élection am képp ku contourner président de la république waru fi def ñettelu mandat nañu jël ngànnaay yi jaamaarloog ñoom ba tegaat fi président boobu gis nga waa jooju du nit ab dof la malheureusement Sénégal dof dina fi takk ndomba tànk bu nekk kooku nekk na député jiite ci mbooloo loo xam ne kenn xamul nu ñu toll li mu yor ci ndomba tànk ci réew mi kenn la ko wax kenn gënu koo jege daanaka fa ñuy jëlee décision ci nguur gi la nekk te kii xelam fii la toll mooy président bi ma àndal su bëggee def ñetteelu màndaa bu amee ñu bañ ne nu jël jaas yi jëflante kook ñoom ba mu saf sàpp ba tegaat ko fi dogo dem te moom loolu mu wax président bi mu koy waxal moom sañul wax kàddu googu sañu ko moom dof bi mu sañ koo génne kooku warul woon fanaan këram waratul am ndomba tànk fii ci réew mi man dama seexuloo tudd turam bu doon député la dañ ko waroon dindi ci député googu mu nekk su doon meer la dañ ko war a dindi ci maire googu mu doon su doon président conseil la dañ ko waroon dindi ci bopp boobu mu nekk mu des di benn taxawaalukat boo xam ne dootul gisati jant giiru dundam ndax kooku mu ngi wax lu taal am réew ay nit yu moom seen alal di wut ku ñuy tànn pour mu jiiteel leen ñuy xool ba gis ku leen doy ñu dajale seeni carte ne ko yaa ñu doy am nga jiite yow nga ne léegi loolu nañ ko dépassé mooy ku bëgg a toogati utiliser saw nit ñu jëlee arme di xeex ba tegle fi loo xam ne avant 1900 la woon ñu yëg ne lii du yëfu nit jàpp ay nit di rey ba toog seen kaw ba nekk buur ay nit di génne wax yu mel noonu ñu bàyyi leen ñuy taxawaalu ci mbedd mi loolu musiba gënu ko rey nit dootul waxati lu gën a rëy lii dara gënul metti nag am ñu bokk ci seen parti génn di ko defendre naan noo jël ngànnaay yi muy wax loolu déggin la rek nañ ko déggee ne ay carte électeur lay wax yàlla na nu yàlla musal ci naafiq naafiq daal kenn du ko jiitu safara maa ngi door a comprendre li tax يلا وقني إن المنافقين في درك الأسفل من النار يفري بني لين دي مبغل مبغلو نافقي موي غنا متي بو يفري باسكو يفر دافا اونيت مو داني غاوما يالا بوين دوما كو ديف دوما كو واخ مو لير كني كي غمول نافق داي واني سي كاو دي واني سي صلى الله عليه وسلم لي جوغي walla mu jóge ci ku dund ak moom mu gis ko te noppi ca ndax xam ngeen ni yonent bi lépp lu mu noppi rek lu baax lay doon waaye bu dee loo xamante ni yàlla nangu ko yonent munu caa noppi yonent bi yàlla da ko jox kamaalul bayaan lu mu wax day leer naññ ànd ak laay biir bu mat sëkk waaw yonent bi mun naa kullu bidaatin dalaala ci kanamu saxaaba yi saxaaba yi di dund ñoom ñépp alquran di wàcc seen kanam alquran wàcc ba jeex ba al yawma akmaltu lakum diinakum amul ci saxaaba yi kenn ku mësa jóg benn bis moo xam bisu altine la walla fukki fan ñaar ci weeru gàmmu nga ni dama koy màggal ndax muhammad ci la judd ku xam loolu rek defiyee naa la nga wan ma ko ku ko xam képp ku xam ci saxaaba yi benn saxaaba bu musa toog benn bis yokk julli walla mu ñàkk nelaw walla mu naafila walla mu jaamu yàlla walla mu sikkar lan moo tax nga di ko def parce que ci la muhammad judd ku ci xam benn saxaaba dimbole ma ngir yalla nga leeral ma ma dellu ginnaw ku xam ci tabi'ina yi jaru sax may dem ci tabi'ina yi ginnaw yonante bi su nit jógee nak ne bida amna bu rafet vraiment amna bida bo xamanteni ni war nañ ko mën rafet lu daal te yonante bi ne kullu bid'atin dalala gis nga mbokk yi kullu bid'atin dalala dafa leer nañ saay-saay rek moo ko bëgg a lëndëmal waaye daal leer nañ ndax ki ne bidaa bu rafet am na ndax du yonent bi nga bëgg a tuumaal alquran de nee na yonent bi yaa ayyuhal rasulu ballig ma undila ilayka min rabbik fa in lam fa ma ballagta risalatak yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa ay yow yonent bi jottalil li ma wàcce ci yow li ma wàcce ci yow mooy alquran soo ko jottalewul wor nga loolu la yàlla wax bi bépp bidaa mbokk yi bépp bidaa ak yow soxna si muy déglu bu nit di def rek da ca jublu tuyaaba yàlla gërëm ko ki ne day màggal juddu yonent bi lan moo tax mu di ko def du dafa bëgg tuyaaba kii ne day gàmm guddi yonente lan moo ko tax mu dafa bëgg yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko mu wane bëgg gum bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa léegi nag saa bu nit sosee benn bidaa rek yëgal ni tuyaaba la ci bëgg moo tax ñu ndaw duñ ko def bidaa ñu mag a koy def ay jàngkat yu mag ñoo koy def ay nitu yàlla lu ñu leen di wooyee ñoom ñoo koy def léegi nag saa boo nee benn bidaa am na ñaari mbir indi ko ci pour jam yonente bi sallallahu alayhi wa بورم بني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونثله جهنم وساءت مصيره بورم jahannam wa كيبكو masira borom bi nee na képp ku wuuteeg muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw nga top yoonu ñeneen ñu dul jullit xayra sabili muminin mooy nga topp beneen yoon bu dul yoonu saxaaba ya borom bi ne nu walli li yenn waxtaankat yi waxtaan naan malaaka mi lay dool bool ñu tàng ci laak yooyu maanaam ñun li ñuy wax yàlla soxoreewu noonu parce que lu nit néegul a def morom ma nu ko yàlla néeg a defee nit te yërmande gi nga am yow Sëñ Saaliw ba néegoo maa kaata yaa ngi ko jëlee ci yàlla kon yàlla lam dese nun toll te fi ngay tegtaloo sunu borom mooy xoolal ñi ko gëmul ba ne yàlla amul xoolal ñi ne gëm nañ ko ba pare duñ ko jaamu xoolal jullit yi mooy yàlla di njaaloog lu ne ñu di ci dugg yooyu yëpp yàlla accepté ne pat xañu la wërsëg du la rey te sa dee jotul déedéet lépp loo xam ne tëraloon na ko ne dina la ko defal day mat sëg yàlla soxorul ñun ñoo soxor fii ngay gis oustaz yoo xam dañuy jël mel ni ko yor dibiteeri di wàjj nit ñi rek di lakk rekk soo dee ñu wàjj la ba nga xam safara si nii naa naa ñu dóor la bolde sa bopp bi dem sa yaram tañ ci yàlla soxorewul noonu bi ñu laaj yonent bi ne ko luy dee mu ne toxoo ci kër dem ci kër kon ni ni nga toxoo ci ndiggu baay dem ci ndiggu yaay jógee ci ndiggu yaay muy biiru yaay ñëw ci biir suuf jóge ci suuf dem biir bàmmeel jóge fa dem barzaq toog ay dal rek ay dal rek soo waree dem aljana nag ci dàll bi nga koy xamee day neex soo waree dem safara yi ci dal bi nga koy xamee mais kenn duggagul safara kenn duggagul aljana ba fii may wax ak yow laaj ko ñu xam ne parce que Iran xamul dara ni ngay nekkee sa biiru yaay moog bàmmeel yam soo soo juddoo di liir moog dekkee yam gëm ko du lu garaaw suufa lay ëmbaat rek imbi la ni yaay ëmbi imbi suuf day ëmb imbi fu mu foo jëm bar sax da ngay ci kër dem ci kër du lu garaaw ba nit ñi fër-fëree di tiit ak ñu leen di tiital ndox mu tàng sa yur gi day bax ak ñu dugal la safara nga pétt yooyu yëpp yooyu yëpp da bëgg a wane ne yàlla dafa soxor war ko sunu borom soxorul parce que dafa ñu bëgg wala xadd karab naa ba ni aadam safaraa ngi yem ci ñàkk def gi la yàlla sant ëllëg mu ne la defoo dara doy na aljana Balla numéro 2 maa ngi déglu Sénégal live forever forever sa kaw ca kanam ci lu baax yéen a fi ne. man Soumboulou maa ngi seetaan Sénégal live waxtaan bi foofu la Sénégal live yéen nag mbaa kar ngeen ko mbaa yéen it yéen a ngi koy kar mbaa yëg ngeen ni waxtaan bi foofu la Sénégal live kon léegi léegi lay doon Sénégal live kon léegi léegi lay doon